internet wasaare lamb ñu ngi leen di nuyu di leen nuyoo tey ci terrain gaal gi bu xaar yàlla ñu ñëw ci gala boo xam ne 2 millions de francs CFA lañ tegal mbër yi ñu ko koog bile combat ñu dox ci diggante ordinateur ak Bass Nguel Dione ordinateur à droite bi ñu fii mujjee moo jël gala bi Bass Nguel Dione moom la ñu moo ñu woon ginnaaw ngeen boo ngeen lu bulali ordinateur ngeen boo ngeen lu xonq Bass Nguel Dione ordinateur ordinateur na ko. hee ndaw làmb ju rëy mbokki amateur yi ndaw làmb ju rëy mbokki internet yi tey gis nañ fi Ibou Ndiaye Obali gis nañ fi Ngane Sène gis nañ fi Kalmu Ndour ñu gën koo xam ci Grand Mbagnick gisati nañ fi Pakala gis fi Libidor ñaari Libidor yaa ngi fi Libidor bu Ngunjaan ak Libidor bu Kayar hee gis nañ fi tey tas yaakaar mooy waaj a sëgg noonu waaye Bass Nguel Jon ak ordinateur combat préliminaire premier combat de la soirée diggante Bass Nguel ngemboo ngemb lu ak ordinateur ngemboo ngemb xonq waaye xaw a jàkkaarloog nun ci diggi géew bi ba léegi amaat nañu tas yaakaar dama ne tey ni mag ñiy wax dana mel ni ba nëx saañ ba réer gis nañ fi Buldozer gis nañ fi Ganja Moundé wala Ganja Mané ndeysaan ñoo noonu ordinateur Bass Nguel Dione moo fa nekk ba léegi ak Bass

et fii mbër yaa ngay dóorante ba léegi avertissement encore pour l'adversaire est disqualifié Tass Yakar se qualifie au deuxième tour fële ñu ngi ci ordinateur ba léegi tas yaakaar daan na premier tirage am combat préliminaire am tas la ngay puus waaw noonu la tas da ngay puus ordinateur pas ngel jon ordinateur parce que Dionna a failli tromper ordinateur l'ordinateur qui ne planque jamais di fàttali ne bi ñu fii mujjee moo jëloon galaaba ci kaw ngóor ci kaw ngañ seen ordinateur jàpp na ko fu sori bas daa génn saaku ya daanu nga bas daanu nga ordinateur kum ko def ñu lëng la yóbbu et c'est